daa defal alxaaji sëñ Mbàkke si la mu nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara tabaarakallaahu démb bi ñu yëkkati jataay bi ci séminaire bi noo ngi woon ci tomb bu am solo boo xam ne bii bi xale yi jëlee pause kafe ñi ngi ci doon def ay commentaire commentaire yi ku bëgg niru Seydina Aliou nooy def commentaire ku bëgg niru kenn ci sunu mag ñi nooy def waaw commentaire u commentaire u bëgg niru leader politicien yi ne ci pénc mi te def fi lu ñuy joxoñ nooy def commentaire ko bëgg nekk leadership ci wàllu diine nooy def vraiment commentaire yi ci xale yi def bu ñu jëlee pause bari woon na lool ñëw nañu sax bëgg maa wër may leen noo man <laughs> dem leen wëri sëñ Mbàkke si la ngeen posé ci ay question ba xam bu ko defee mu indi ko ci table ji alakuli xaal démb ci tomb boobu la ñu nekkoon tomb la bu am solo mooy exemple yi ngay joxe ci nit jéem koo doon rek waaw exemple yi nga joxe ci nit waaw jéem koo doon yow ne ko allo Saas Ahmed Dame Ndiaye na ne penc mii penc mii ne cëpp nekkub yonent rek a fi jafe waaye loo fi bëgg doon rek boo xëy jël programme ba balaa ginnaaw suba nga doon ko waaw ndax loolu noonu la yàlla dogal jërëjëf Oustaz Ahmed tey damay ñëw ci ñaarlu maladie bi sëñ Mbàkke muy feebar bi eh, xale yi ñu ngi wax ci génne seen bindukaay pour noter mooy ban mooy xalabatu nazariya ala al mooy théorie théorie ngi bëgg a jël place su pratique penc mi yi mi ngi bëgg a jël place su pratique jël na ko sax lay wax tabarkàlla buñ la théoriseel ay mbir rekk macha allah waaye bu pratique jotee daanaka mën nga ne zéro di sànn suñ masaana fal nit premier ministre ba mu def seen discours bu gudd boobu dangay ngay defee ni bu subaa Sénégal romb France macha allah yenn discours yoo xam ne xam naa yéen a ko denc ba léegi ku ñu mas a fal premier ministre rek nga jël ko waaw nga jël ko waaye da ngay lakk lakk tubaab yoo xam ni ni nga bëgg a def réew mi fi nga ko bëgg a jaarale waaw defe naa fàttewu leen bu sa Seck ba yàlla na ko yàlla yokk wér kenn mësu ko gis rek ak bu bu bu bu mbay waaw kooku Ahmed di tooñee boroom tubaab yi neex yi waaw tubaarkalla si tit tit tit hmm? waaw monsieur le ministre moo di kon eh, nazaria muy théorie théorie pratique daf ko war a jël place ñu bàyyi théorie bi tey pratique waaw ñaar dañoo bokkoon ab laax ñi mumaa tudd ndax ci comme ci antenne la ñu nekk te mbirum aada ci pénc mi ko waaye daal ñaar dañoo bokkoon ab laax waaw waa ji ndaw imaam Ablaye Ndaw ak imaam Ablaye Sow waaw wala imaam Ali Ba <laughs> kenn ki ne morom ji waayow an sa baay an baay xam nga laax kuy wax du ko mën a lekk mu ne ko ansa sa baay ki sant ndaw moo ne ki sant ba an sa baay mu koy wax nag baayam ne ko sama baay ndeysaan mi ngi dëkkoon càlle ci dëkk bu ñuy wax saaburi waaw dëkkoon saaburi mook mooy mook sàmba daadal ñoom ñoo bokk nangam waaw ndeysaan fa lañ jóge woon toxu waaw damoon cil ma xam mbaakol bu nawet jotee ñu delsi ndaw ku ndaa bi moom mi ngi tibb rek di sax maanaam mi ngi fa loxoom leer mi ngi fas rek <laughs> kii nag mi ngi koy wax mi ngi koy tontu ci am sa bàyyi mi ngi ko tontu question bi lay tontu an sa baay mu ne ca naan ko sama baay ba mu fu jógee mu mu dem mu jënd ay xar ak i bëy oh, sama baay mu jën a am alal ndeysaan sama baay rek ne ca ne ca waa ji di tibb di Cheikh ndaw kundaa bi di tibb di Cheikh ba ba ba ki sant ba xool ko rek gis na laax bi la ci sa bëriwul mu door ne ko mu faatoo dëkk sàngam bëgg jeexal nag waaye nag léegi pour pour nag moom na ko poser question bi ndax moom it mu jaar fi mu jaar mu lekk li ci des mu ne ko yow nag an <laughs> <laughs> baay mu ne ko gisul biti waaw lu rek la ko tontu an ko gisul bitti ma <laughs> gis nga loolu ci pénc mi bi ñu yëkkatee baatu force track bu fekkoon du théorie mais pratique la dëkk bi yëpp sànce yi àgg na waaw ngeen baal ma force track defe naa nu lañ tuddee baat bi professeur kon dëkk bi yëpp sànce yi sànce yi àgg na mooy théorie bi na pratique bi jël place am waaw nettali woon naa leen keroog ba ñu yóbboo commissariat central ca Dakar waaw nettali naa ko xale yi maa ngi koy nettali séminariste yi waaw kër ba ñu fa yóbbu genn góor gu dëkk cee sant aj wala njaaj waaw moo fa ñëw ko mbàjjam ne su ma fa fanaanee fa lay fanaan ndax ñoom niti action lañ mu new loolu nag lañ bëgg kon action walla pratique daa war a gën théorie waaye nit ñi mbokk yi am na ñoo xam ne tabarkàlla seen dund gi yépp mbirum théorie la rekk nag xanaa mos ma nettali leen waat yéen yéen séminariste yi ñetti nit dañoo nekkoon Louga Louga bëgg nawetaani dëkk bu ñu coon ca Saalum ñu ne léegi comme ñoo ngi ci nawet baa ngi jublu si nanu cotiser ku nekk fexee am fukki junni muy muy fanweeri junni ñu dem nawetaani ñu ne ay ci noonu la war a def ñu daal di génne seen cotisation waaw daal di koy jox kenn ki ñu war a dem nag coon pour nawetaan yi jóge Louga jaar Kébémer jaar Touba jaar mbakke waaw jaar Tiib jaar ñibi dem coon <laughs> léegi bi ñu cotisé ba noppi nag aw waxtaan dugg leen ci wàllu ci wàllu théorie ci wàllu théorie waaye yéen moor mu ne ah mu ne ko bu ñu nawetee ba noppi bay am ca ay toni gerte nuñ koy def nuñ koy def kenn ki ne ah xanaa bu ñëwee ci dëkk bi jënd ci fëgg jaay di jaay ñu ne ah baaw lu di baax na wala ñu dem Mbambilor ci Cheikh Ka jënd ganaar ganaar yi nen ñu ne alul de baax na wala ñu jënd ganaar yi nga xam ne dañ leen yafal bañ màgg ñu rey leen comme korit ak koor gaa ngi dugg si ñu ne alul de baax na kenn ki ne wala ñu jënd ci ab kalandoo sax pour pourquoi mënuñ ci jënd kalandoo ñu ne ah wax nga dëgg nag kalandoo yi baax na de dégg waa ji nga xam ne am na permis ci ñoom daal ne ah kon de xam naa man comme mën naa dewal ma war ko rek naan ngeen baal ma ci noonu waaye bi mu defee noonu rek jenn waa ji daal di gàddu wee rek dóor ko ne ko bul jeexal essence bi xaañ ko rës ne ko bul jeexal essence bi essence ban essence bi nar a sol ci oto bi oto ban oto bi ñu cotisé pour mbay mbay man mbay ma ñuy bay bu nawet jotee nawet ban nawet ba ñuy naweti coon dara amagu ci ñu ngi xeex dara amagu ci ñu ngi xeex gis nga théorie boobu moo ñu dal ci suñu gaz beeg suñu pétrole bii kurpa njaa ngi dal waaw lu tax bu leen tànq pétrole bi gaaw yéen a ngi koy tànq di naan <laughs> ak pétrole fi muy jaar boo laajee borom xam-xam yi màcc ci loolu marché bi ni mu wuuteeg marché Gueule Tapée bii tabarkalla waaye daal ala kulli xaal théorie bi pratique bi daf ko war a gën waaw xale yi ne ha mooy leen waaw may leen waaw waaw daal leen di firndeel loolu ci alxuraan téeréb sunu borom bi nga xam ne moo ne maa farat naa fil kitab min shay matière bu ngeen dugg maa ngi ci ak yéen allahu akbar yàlla nee na tem bu ngeen dugg maa ngi ci ak yéen maa farat naa fil kitab min shay kon lu xew mooy nun dañ koy barkeeloo te duñ ko jàngalu rek la waaye bépp bépp tomb boo dugg ci politique économie social environnementale rek mën nga ci biir waaw ndeysaan sunu présidente ba Aminata Tall daana ma ko wax <laughs> si yàlla na ko yàlla yokk wér waaw conseil économique social et environnemental lépp loo yëkkati alxuraan wax na ci lépp nag maa faratnaa fil kitaab min shay alxuraan wax na ci tomb bii théorie ak pratique waaw waaw acca demal ci sóoratu ar-ra'd mooy firi dënnu saar wi yàlla tuddee dënnu dënnu lu cay lu cay tege melax melax taw waaw yàlla moom saa boo déggee muy muy théorie rek mu ngi pratiqué ngeen baal ma ci misaal bi noonu laa ko ba ma ne misaale ba gone yi dégg ko bu ñu dug dug dug ñu ne ah mu ne tay melax ñu ne ah ndox yi tàmbalee toq déglul suñu borom lahu muaqibatum waaw lahu muaqibat min bayni yadayhi min xalfihi yaxfazuuna min amrillah yàlla mu ne bu ngeen gisee jàmm am seen diggante jinne yi dëkku leen ci xeex di sa allahu akbar mu ne mu ne dafa am lu ma fi def lan la fi def mu aqibaatun ay malaaka yu ay lantoo ay malaaka yoo xam ne bu ñuy bu ñuy monte bu ñuy wàcc la ñeneen ñay monte mu aqibaatun min bayni yadayhi wa min xalfihi wa yaxfadunahu min amrillah yàlla mooy joxe ndigal ne malaaka yi bu ngeen gardewul nit ñi jinne yi gaañ leen kon nit ku nekk dama koy affecté ñaari jin ñaari malaaka ñu di ko ñu di ko sàmm yàlla moo nu moo nu bëgg te moo baax wala xar karam na bani aadama fi ne saa boo xëyee ñaari malaaka nga la topp waaw yaxfazunahu min bayni yadihi ñoo lay sàmm ñoo lay sécuriser la ko mooy jinne yi gaañ la ndax kaana rijaalun min al insi ya'uuzuuna bi rijaalin min al jinni fa zaaduuhum rahaqa mu ngi ci sóoratul jinni yàlla nee na loolu laa def kenn ku ne ma afrita la ñaari jinne góor ak jigéen ñu ñaari malaaka ñu lay sàmm moo tax gu jigéen bu tasee musóor ga rek ah malaaka ya dëpp <laughs> bu solee lu gàtt malaaka ya dëpp mm-hmm. waaw am na cool loo xam ne boo ko solee yow jigéen en tant jigéen malaka yi dëpp bàyyi la ak jinne yi moo tax fi ne juróomi jigéen ñoo wàññi ci dëkk bi ñett yi am nañ jinne wax la ko tey waaw cinq femmes yoo fi gis daanaka trois yaa ngi ki euh, ay fari jinne lu tax ñàkk musóoru gi ñàkk sol lu baax waaw ñàkk ak létt yi ñuy léttoog yu ni demee tax na ñaari malaaka yi lay garde comme ñoom duñ gis awra malaaka ya daan ne sunu borom ah yaa gis de mun na ñëw leen kii bëggul ko ko garde ki lay sécuriser daa am lu lu koy loo koy loo koy garder wala loo koy sant ak loo koy gërëme <laughs> waaw mu ngoog gars yi dañoo am dañoo am ay jàng <laughs> dañoo am ay jàng euh, amuñu ay pied yuñ samp pour mu tiye pour mu tiye tànt bi waaw Maxtaar Jóob mala ca Espagne moo na ko doon nettali waaw nee a ah, ñu dem jëli ay ay gëléem ñeenti gëléem ne leen da ngeen di ŋànk tànt bi kon ku ne na na ŋànk ci koñ bi <laughs> gëléem yi ku ne ŋànk ci benn koñ loolu mooy doon tànt bi waaw gëléem yi ku ne ŋànk ci benn koñ téen ak téen ak baas bi ah gaa yi toog ci ron baas bi kon eh, jàng yi tàmbali waaye xam nga <laughs> ci wàllu théorie yow doo def ba liggéey ba noppi xanaa sante déedéet gaa ñi tàmbali bëgg a tàmbale ci sant giléem yi maa ngi ci yi gis nga pratique bi mooy dangaa war na def ba noppi door a sant déedéet ñu commencé rek ah mbokk yi bu ngeen gisee tànt bi tàlli suñu mbokki giléem yi noo noo <laughs> noo téye tànt bi <laughs> suñu mbokki giléem yi ñoo téye tànt bi kon nag amee leen njukkal ñoo ngi leen di sant rek giléem ya ree giléem yi reexe tànt bi ci dal ci kaw ci kaw nit ñi gis nga théorie bi pratique bi moo doonoon nañ waxtaan ba jeexal ba génn tànt bi gërëm giléem yi bu ko defee bu ñu reexee bu tànt bi daanoo ci kaw sees yi lay daanu waaye déedéet ca lañ tàmbalee gis nga théorie boobu ci pénc mi li muy yàq dafa bari mooy giléem yi dañ ñëw dégg rek ah ñu ngi sant suñu mbokki giléem yi vraiment bu tànt bi tàll tàllee ci ñoom la giléem ya xàqataay te xam nga ni ku nga ko baas boo xàqataay mu rëcc la allahu akbar moo tax sunu borom ne lahu muaqibatum min bayni yadihi min xalfi yaxfaduhu min xam nga lu xew inna allaha la yuxayiru ma waaw inna allaha laa yuxayyiru ma bi qawmin xataa yuxayyiru ma bi anfusihim li leen na li ma li leen naqari ci seenum pénc du doñ mukk lu dul li ma naqari ci yéen daa dañ loolu la yàlla wax li leen naqari ci seenum pénc du dañ mukk lu dul li ma naqari ci yéen daa dañ wa izaa araada llaahu bi qawmin suu'an falaa maradda lahu yàlla nee na ku ma bëgg duma kenn mënut sama loxo jëla jëlalu azza kamal wulay ku ma mën a ku ma bëgg a duma kenn mënut a sama loxo fala maradda lahu wa ma lahu min dunihi min waal mbokk yi loolu yàlla nga wax ca raad aaya fukk ak benn te raad mooy firi dënnu hmm? kon ndaw ñi yéen ñi jàkkaarloog man ci seminaire bi te yor seen bindukaay di noter deuxième maladie bu ñu war a faj ci ndaw ñépp góor ak jigéen koo ci xam ne feebar bi nekk na ci yow te mooy feebaru théorie jël place su pratique waaw ñu faj la ci ba nga xam ne pratique moo war jël place su théorie am na yoo xam ne jëru ko bu fekkee théorie mënut a ñàkkit na doon lu ndaw pratique ñëw jëmbal ko waaw rekk mu jeex Ah, waaw waaw mu jeex pratique rek waaw euh, Birahim Birahim Njaay père Birahim <laughs> dafa mës am komba waaw dafa mës a am combat jamono ji muy bëri yàlla na ko yàlla yokk wér ki muy bëreel butéel bu ne naan na ko waaw sëriñoo sëriñ dem na ci dem na bitim réew waaye loolu muy def moom ki muy bëreel lépp day théorie ñu ñëw ca làmb ja waaw mbay gee ngi taxaw ci wetam waaw di ko digal fa mu koy kurpañ <laughs> Père Birahim di lu léewtoom yàgg rek mun na waaj ab kurpañ cépp mu ne det luy loolu mooy waa ji lim mi mu doon bëri lim nekkoon lépp ay théorie la Père Birahim lim nekk mooy pratique bi mooy lan dóor ko bu kurpañ mu ne det mu jeex tàkk mu jeex tàkk kon ndaw ñi nañu fexe ba rabtul asbaabi bil musabbibaat mooy yàlla kenn du tëdd rek naan baax na baax na baax na yàlla baax na de waaye dafa am yooyu da koy jël waaw ci contexte bi mu nekk teg ko ci bi mu nekkut teg ko ci bi mu war a nekk kero bi Mariama amee doom doomam ja Isa alayhi salaam ba mu ne koy tegal sa loxo ci ëkk gi dana jebbi dana meññi dana ñor nee na ko falayam nag gësëm nag mën nga ko mooy yàlla moo dul defal kenn lu mën mukk waaw mbokk yi rawatina nag changement yi xale yi bëgg ci pénc mi lu ci nekk am na lu muy tekki boo ca doxee rekk muy noonu pénc mi set pénc mi yaatu pénc mi féex nu fexe ba bañ di xaar tey def sunu doole sunu kemtalaay àdduna sëriñ Cheikh nee na noo ko man waaw noo ko man nan ko song takk sunu fit bàkk yàlla daan àdduna hmm? waaw moo tax am na yoo xam ne ci pénc mi sàggane ko baaxut waaw ndax lu fondamental la ci biir bi ci diini ci politique ci pénc mi ak ci économie ak social kon sàggane ko mooy danga nga bëgg te dem neenal ko mooy danga ngaa bëgg te dem doyadal ko mooy da ngaa bëgg te dem wa ila dalika yushiru kathirun min al ayati al quraniya ca lan faal 53 lu borom ba waxati foofa dalik bi ann allaha yk yaku muxayira nicma anamaha ala qawmin xata yuxayiru ma bi ci waaw waaw nee na xéewal du nekk ci dëkk ñu jékki-jékki xéewal ga jóge fa lu nit ñaa fa jële xéewal ga ndeysaan yàlla nee na dalika bi ann allaha lam yaku muxayiran nicma anamaha ala qawm hatta yuqayyiru ma bi anfusihim waaw nee na dëkk boo xam ne dangay toog lépp yomb nga jékki-jékki lépp jafe yàlla nee na bu ma ko kenn jiiñ hmm? waaw <laughs> yàlla nee nekk ci dëkk lépp yomb ba mu yàgg lépp jafe ne ci dëkk ku dëdd nelaw ba mu yàgg kenn mënut a nelaw kenn mënu tudd nelaw ne ci dëkk fa la neex dem ba mu yàgg koy dem wut ku la gunge hmm, waaw yàlla mu ne xéewal googu du fi jóg lu dul yéena soppeeku xéewal ga ñibbi gis nga tan mu dal fenn te middu mbaam nekk fa soo gisee tan ya dem rek mooy midd maa jeex waaye li fekk ma nga fa fa la nekk la sëriñ ba waxoon ca njaareem taaliban wax auzu billahi min asheytaan rajim auzu billahi min asheytaan rajim mel ni ku koy sikkar sëriñ bi woola ko mu ñëw mu ne ko li ngay wax nii loo ci jublu mu ne ko bëgg a tàggoog seytaane mu ne ko bàyyi liifam bàyyi liifam munoo yor yëfam ba noppi di tàggoog ma dalika bi anna allah lam yakum xayra nicma anamaha ala qawm xata yuxayru ma bi anfusihim ku soppi ko ya nga yoroon rëcc la ku soppi ko ya nga yoroon rëcc la monsieur madame et mademoiselle et eh, mes chers compatriotes séminaristes <laughs> sunu bindu tey sunu bindu tey fi nu dugg ak yéen moo di théorie baax na waaye bu jëlee palaasu pratique baaxul nanu jàng pratique nanu jàng action nanu jàng def te wàññi wax ji nañu bàyyi wàññi wax ji tey def mbokk yi seminarist yi maa ngi leen di bàyyi fii ngeen dem noppalu jël kafe ñuy jël euh, bisaab jël bisaab ndax bisaab a ngi ci taabal ji euh, am na fi tam tuuti bonbon ak euh, gerte caaf <laughs> jërë ngeen jëf bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen war ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 88 628 98 98 ngeen bës 2 nu ànd ci suñu jataay bi nga xam ne day am mar lundi di am mardi lundi ak mardi lay am ñaari bés yooyu huit lay tàmbali tabaarakallaahu dix heures lay jeex ñu ànd ci ci sunu laaj yi ñuy laaj foofu te mun mënuñu koo laaj ci kaw wala léeg-léeg kaw gi xan ak seen fa rekk te jotaay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yoru seen i kayit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar toi firiñ fàncal ko ci wolof ñaanal leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor mi C3S tabaarkalla nekk ca E, Kër Massar yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.